jaajëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu siyaar nañ leen ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci Fass Fass koñ bi nan la tuddati sax. Fass bi koñ bi nu mu bendeñe bendeñe mooy garab gu dijj googu noonu mi ngi nelee moom lañu <laughs> bàyyi si ginnaaw <laughs> moom mooy roi wu Fass moom dañ ko ba samp fii rek du fi jóge quoi dara mun ko fee jëlee ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah di nuyu Seydina borom Amérique ñëw dem Amérique ñëwaat indaale woo dara lu dul góor gi góor gi daal gis naa mu takk chaîne bu bees ak montre bu bees <laughs> mais man zéro <laughs> joxuma dara Seydina ñu ngi nuy nuya ah, waa États-Unis euh, sëñ Saliou maa ngi lay nuyu bu baax a baax moom itamit euh, bokk ci équipe bi ñoo ñu indi tey ñu ngi fii ci koñu Ada Fass c'est la deuxième fois ñu ñëw defaat ak moom waxtaan mais bi moom c'est particulier parce que weeru koor la mhm. weeru koor dañu ñëw am leen ñoom ci liñ leen fekk ñuy yëngu ci weeru koor gi Euh, balaa ñuy si loolu ñu bàyyi ko moom Ada Fass mu nuyu ak lu làmb nuyu Sénégal nuyu diaspora bi. jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jawalaw almis baax Krafal waaw maa leen nu nuyu di leen fay di leen dalal di wax gars yi déwénati baal ñu ak baal leen yàlla ñu yàlla boole baal fekk ay déwéni déwén di wax waaw. baal nañ la ak est yow amel nga kenn ak. non amel naa gars yi àq ndaxte. làmb rek àq la. non Tapha Mbeur nga amel àq. Eh, waaw maa ngi koy baalu ak kii nu mu tëddee ku ci mujj gi. Jokal. Jokal sama copain maa ngi ah? <laughs> maa ngi koy baalu àq te ko ay bagages <laughs> maa eh? ngi baalu ko ci ndel bi sama grand la ana sama grand eh? uh-huh. mais baalu nga kii kii euh, Tapha Mbeur. waaw ñëpp ñëpp baal naa baalu naa leen àq sama adversaire yi ma jot a bëri yëpp baal naa leen àq. baal na ñëpp ak ñu ngi baalu ñëpp ak yàlla na yàlla def jàmm kooru jàmm bismillahi rahmaani rahim rek lañ koy tàmbalee jeexalee ko alhamdulilahi rabbi alamin alors Ada li ma lay njëkk a laaj ah, mooy est-ce que yow da ngay woor fekk naa la nga sex socc mais xanaa xamoo ne gars yi bëri trompeur yu bëri socc la ñuy sex mais seen koor moom day koy dégg rek. non man damay woor. yow ak gaa gaayen bee nga dendal. ak seen i man bu may am bu may am ba léegi maa ngi micro bi am 16 ba léegi maa ngi woor. seize ans ba léegi maa ngi woor man damay woor dëggantaan dëggantaan Ndiaye daaw de wooru gaale yooyu seize ans barke sëñ Saalou damay woor kon boo ko yi wax nii dañuy woor non damay woor man hmm. damay woor uh-huh. fi nga wala waaw fi laa ko tàmbalee non fi laa ko tàmbalee bu may nekk xale bi nekk xale waaw dañ ma si yar daal hmm. mais alors koor ak mbër koor ak mbër naka lay demee entraînement wàccaayu combat surtout yow yaa ngi ci wàccaayu combat mhm. mais ci entraînement yi ak koor gi naka lay affaire yi demee. waaw entraînement yi kon kon dab rek mais dañ koy wàññi instant koor gi deux séances la ñuy entraîné. Euh, dix-sept waaw ak guddi gi. soir ak avant ñuy avant ñuy avant lay dem salle léegi bu ñu ndogoo ba pare dem géej contact. Hmm. Euh, avant ngeen di ndogu ngay dem saal bu ñu ndogoo pare ñu dem géej contact. mais boo demee saal li nga doon yëkkati da ngay wàññi. non dañuy wàññi dañuy def fitness rek dañuy hmm. dem. tàngal yaram bi. maintenir yaram bi waaw bu yaram bi tàngee bu ñëwee ndogu après ñu dem géej contact yi chargé. Mhm. léegi fajar bi amatul quoi. non fajar bi amul. Hmm. <laughs> dañuy woor da ngeen xëdd rek tëdd ah, mais mais euh, mbër ak koor. mbër buñ ko xamee xam ko. car macha allah quoi maa ngi jéewul quoi mën a lekk. Mhm. mbër xam nga day lekk. parce que mhm. entraînement yi ñoo métti. yeewu fajar ngoon si. guddi gi parce que ñu ci bëri dañuy def trois séances parfois boo amee combat yoo xam ni dafa jar nga def trois séances wala ba nga def ñaari séances mais li ngay joxe moom ngay mën a renforcer waat ak lekk. Mhm. surtout lekk bu diis bi. mbër ak ni mu bëggee lekk du ma ne bëgg lekk ak ni mu waree lekk normalement parce que entraînement yu métti yi. Mhm. noo leen koy gérer ak ak koor gi du métti si yéen. waaw ñun kon dab rek mais loolu si ñëpp lay métti. waaw. da nga xool bul xoo yow bokkuñu. non garaaw man du ma entraîné yow da ngay entraîné. mais tamit suñu borom moo ko digle. waaw suñu borom lu mu digle dañ koy def. Mm. waaw suñu borom la moo ne dañuy woor au moins yàggul. maanaam man yow sa xiif mooy gën a métti sama xiif. loolu dëgg la mais dañ koy muñ. waaw ndax suñu borom la. waaw suñu borom la. parce que boo soxlee moom ngay ñaan mu may la. Mm. tey jii bu la bu la nee au moins tamit doo lekk doo lekk. Mm. da ngay muñ xam na ne suñu borom la. ñun dañuy xiif dañuy sonn mais dañuy muñ. léegi bu bu bu ndogu jotee ndogu bi nan lay demee cere la. Ah, ndogu bi xam nga wala wala mburoog mburoog bu mburoog mayonnaise. wala ndogoo dañuy tegal meew ñu naan ba pare meew. meew bu ah. tàng jër ñu naan ba pare waaw commencé jublu si affaire yi. bu mm-hmm. ñu ndogoo moom foofu moom ñoo moom suñu bopp. waaw ah. moom dañuy door ba waaw. da ngay li nga raté matin beeg. bu doo ko remplacer di nga ci jël tuuti. <laughs> danga nga jël tuuti mais di nga jël lu diis quoi. Hmm. waaw hmm. jël diis. mais mais lekk bi kañ lay normal noonu parce que am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu ndogoo comme sama genre mhm. man su ma ndogoo moom du ma mën lekk guddi gi laay lekk night night night mais mais yow da ngay ndogu rek teg ko ci. quoi ndogu ko ci ay ndogu dóor. tuuti doo doo xaw kii nii sax sonn noonu am. ñoo xam ne buñ buñ naanee café dañuy sonn. da nga lekk dara loo xam ne dañ ko yóbbu entraînement. da ngay lekk dara loo xam ne dina la téye boo demee entraînement. Mm. waaw nga dem contact da ngay lekk bu baax. dañuy lekk waaw dañuy lekk demi rek. dem contact bu ñu ñëwee nag moom suñu bopp. ñu dóor waaw ba xëy na ba fajar. loolu demee dal ko yaa ko gën a xam. non non mbër rek mbër rek reer heure reeram ak heure xëddëm uh-huh. man dégg naa yéen doo leen tëdd nelaw na ngeen di enchaîner noonu. ba xëdd jot non ñu ngi dañuy xewloo sa waay. ba heure xëdd jot parce que boo nelawee mën ngeen biddanti. dañuy dañuy xewloo ba heure xëdd jot soog a nelaw parce que mën ngeen biddanti ànd bàyyi daa metti torop ay tëdd rek karmat billaahi yow suba gaan naan waa mais a ah, gaan ban jot gars yi ne la dix heures rek sëñ Bamba nga ne na uh-huh. billaahi est-ce que mës na la dal non loolu noonu waaw parfois daf may dal parfois da ngay naroo de biddanti ay dix heures tëpp hmm. def nii gis leer nga tëddaat <laughs> nga laaj heure billaahi après da ngay découragé barke sëñ Bamba non ci mbër loolu day metti nag. non trop day métti day métti. gën a mais loolu da ngay mer wala di nga mere gars yi quoi. gars ku la si xool nga nga mere. non doo doo mer sax yaa xam ne sa bopp yaa bitin. waaw yaa sonn. am ñoo xam dañ koy sipp nit ñi de. non man si xan xëpp ok xëpp kenn suñu borom la rek. yenn xiif yi dafa métti de. trop xiif amul nga ne woon benn copain nga yee ma copain bi yeewu la. xiif daa dëkk kenn dafa dëkk. mu mu. parce que sëñ Bamba <laughs> Uh-huh. mais day dal quoi yenn saa yi nga karmat yooyu noonu. waaw yenn saa moom uh-huh. parfois nga gis ay bidéew nga toog sa commencé miir. waaw doo xam <laughs> di wax doole faal. barke sëñ Bamba. boo karmatee di nga dem entraînement. waaw da nga dem doo ndogoo rek affaire yi jeex na da ngay ba heure ndogu ñu noddu rek. c'est nga am loo dóor kon da ngay yeewaat saa boobu. saako saako bu deful dara du taxaw. Uh-huh. mais mais Ada lay gën a préféré. bu ndogoo ba nopp ban plat lay gën a préféré lan ngay préféré reeree lan ngay préféré lekk. non man ñun suñu cosaan ceebu jën la. ceebu jën ceebu jën mënuñu ko ñàkk lekk si. Ah, si journée bi ceebu jën gaan journée bu guddi na nga war a bàyyi ceebu jën. aada non ma ko ceebu jën moom lañ fi am. waaw guddi gi doo defe amuñu fi ceebu jën kañ. ah lan lañ fi am si laax ngi fi cere ngi fi. non laax moom ban laax. ah supp ngi fi supp laax doo ko entraîné doo demee di ent doo ko lekkee boo demee entraîné da ngay nelaw da ngay tayal. da ngay nelaw moom day dis quoi. da ngay nelaw mooy boo ñibbisee. boo ñibbisee boo lekkee laax da ngay wax moom moo la. lekk mais ceeb bi laa gën a farataal. yow yow ceeb nga gën a farataal ci koor ceeb jën bu. chaque jour ceeb donc cuur noonu la demee. ceeb jën parfois ñu def leneen. Uh-huh. waaw parfois ñu def leneen. Uh-huh. ceebu jën bi rek. non parfois ñu def leneen. parfois ceebu jën ak lan moo la moo la gënal. non say plat laa bëgg a xam quoi si weeru koor. man plat man loo ma tegal ma xéwlu. ngay dóor maafe ñaax rek laay bañ. ngay dóor sub rek laay bañ gars yi am na lu muy bañ. man <laughs> ah bañu dara ah. bañu dara yéen a ngi koy jàppale de. affaire commune ngeen di taxawoo de affaire bàyyi baal ngeen toog di maajaal di ay waaw ay di maajaal kër ak kër ay ceeb yu bokkul ñu koy boole di xewul waaw ñun bañu dara ñun ay Baay Faal lañu hmm. barki sëñ Bamba hmm. kon baax na Mm. alors léegi euh, si si wàccaayu combat nga nekk. Euh, mm. ak koor gi naka nga koy allier parce que mois de juin bi defe naa ngay bëre. waaw ah, mois de juin. mois de juin bi mais wàccaay bi du métti noonu surtout mu nekk combat yoo xam ne combat yu am importance lay doon quoi amul lu mu la mën a koor gi amul lu mu la mën a caler si entraînement dëggantaan wàccaay dëgg. waaw loolu dañ koy dañ koy kii rek nga xam na ni koor gi la quoi. Mm. koor gi il faut il faut ñu woor. suñu borom la nokkoon misaal la wala leneen la garaawul. mais koor gi il faut nga woo. mais yàqul la may gën a may doole. Hmm. waaw gars daf may gën a may doole. man temps dama jeex de. no man mënumaa jeex si koor daf may gën a am damay gën a am doole. non man si man da nga jeex laay non laay mën a laay mën a récupérer. ndaxte avant combat bi da ngay contact. dem géej. mais koor ñaari séance da ngay entraîné ngay mën a récupérer. waaw entraîné récupérer bu koor gi jeexe da ngay jëlaat sa forme demaat matin hmm. midi soir. matin midi soir waaw hmm. amaat sa force normale. waaw man damay woor. te incha allah rabi la euh, mois de juin damaa am dina am doole boo xam ne dama ko mos a am. suñu hmm. borom a koy def si man. Hmm. barke Serigne Bamba. kon koor yow da nga jàpp ne lay gën a renforcer. damay gën a may doole si combat bi. Hmm. waaw bu ma ñaanal suñu borom daf ma koy may. loolu kese moo tax. Ah, waaw mais sa sa yëpp gars yëpp de. non di woor ma ñaanee suñu borom damay may. am na ñoo bu ñaanee. <laughs> suñu borom da koy may am woor moo gars yi Baye Fall lañ duñu woor. du woor. waaye gars yi duñu woor dama lay laaj. man dama tudd tur. non man dama tudd tur. non booy wax da ngay ko bëkk di. la <laughs> bàyyi leket gi ñëw taxaw nii. <laughs> gars yi ma jàll pour café bi quoi comme aada face. <laughs> man yow. waaw. waaye ni moom. moom qualifié nga ni moom du woor. Ah, moom kay du woor du woor Baye Fall la. noo xamee. non non moo xam rek. noo ko xamee moo xam ne du woor xam naa ku lekk avance su Arafat doo woor. waaye xëy di lekk di internet ba bis ba. dégg nga kii li muy wax. nee na qualifié booy bi dëkk Caaroy nekk ndaanaan jël sa avance nga ni du woor. woor du woor. pour yow fit bay dem quoi. waaw su aada la. pour bay dem. dafa yenu lu diis. noonu la demee nag man gëm ne nag yow yaa jël lu diis nag. non loolu loolu yaa wiiri wiiri jaar parcel jaar xaw ma fan jaar xaw ma fan ñëw dugaat biir caaro moo la ko fii man adversaire bu ma tollool taay maa la ëpp doole maa la daa ko bëri adversaire bu ma tollool taay. Coly Faye mënoo ko ëpp doole. mu ko ëppul doole. xale bu ndaw la le 26 yaa ko mag booy bu ndaw la. non Coly mënu ma kaa mag Coly Coly bu muy bëri maa ngi jàng école. Coly ah. rakam sa moom a mag. Coly si boppam. rakam numéro 2 la ñuy wax de rakam laa rakam numéro 2 rakam sama mag. Coly bu ma koy xam boobu xale la kon yow saa di da ko xam moom. xam na xam naa ko bu yàgg. Hmm. xam naa ko bu yàgg yàgg yàgg may toog di seetaan làmb Ibamar. Hmm. yàgg toog di ne kii man ak moom bu ñu tëndee si làmb dama koy dama koy daan. kon yow bëreeg moom bettu la. betu ma te dama ko yàgg suivre. te da nga yàggoon bëgg bëreeg moom. waaw ndax combat bi yaa ko bëgg wala moom moo ko bëree non combat bi moom bëggoon na ko man tamit bëgg naa ko sama staff bëgg nañ ko moom staffam bëgg nañ ko mm. te laa ma boole nañu mm. def naa samay preuve moom def naa ay preuve am mm. mais na xam na ne Ada Fass dañ ko yónni te yaa xam te ko mais Coly Faye du jokkeel de du jokkeel mais bu arbitre bi sifflé gën suñu diggante <laughs> dina leer incha allah booy caaray boobu xam nga booy caaray boobu de nee nga yàgg nga ko digga siraan te bëreem daf la neex lan lay bëree bëre champion bëre ndaanaan bëre gaynde waaw bëre ah. dama xam ne du reculer hmm. te Arafas tamit ku ko xam xam na ne du reculer hmm. bërekat la moom bërekat la te hmm. te macha allah ñu tamit ay bërekat lañ Ada est-ce que mën naa laaj benn affaire bi nga dalee bëre ba ba ba tey jii nii est que gis nga ñu jox la sa benn adversaire nga ni voilà lii nag laa doon wër non man wala sa gars yi ne la gars nag yaa ngi door a am bés man bu may bëre ba léegi combat jànk laa am man combat bis combat yëpp combat jànk la moo sama premier combat ba léegi sama onze douze onze combat yëpp jànk la sama deuxième combat bi tamit waxi noppi. mais gars yu bëri nee nañu am na sa combat yu bëri yoo xam. non combat kii la quoi. combat jànkalan ndax man ñu ma bëri ñëpp si làmb ñoo ma jiitu si làmb. Hmm. ñoom ñëpp ñoo ma jiitu si làmb. damay def samay preuve ñooy ay jàng yu mag lañ. waaw te dama leen di daan. waaw yow jàng bu ndaw nga. waaw moo tax ñu ñoo jox jàng bu ndaw. non moo ko ban jàng bu ndaw disquette combat disquette boog bàyyi leen combat jàng yi di wut combat disquette. xalaatuma ut combat disquette bu ma naree ut ma bàyyi bëri <laughs> disquette xam nga lu metti laay wër. waaw lu bi laay wax. voilà sa morom mu leer na ne kii yow sa morom la. sama morom yi jeexal naa leen sama morom kan laa desal man sama morom yëpp laa bëri daan leen ñëpp man morom mosuma. wala may la est-ce nga benn combat boo xam gars yi ne yii booy nag saa yi nag jàmbaar nag yaa ngi door am. mais mooy bëri ak Tafa Mbër amul lu ñu waxul. waaw ah, Tafa Mbër combat coow benn daanu ko. waaw loolu dëgg la. man rek maa ko daan. waaw saa yu moromam dëgg la. boobu ak keneen ak keneen boobu moom combat disquette la. waaw keneen ak keneen. ay caari ngi wel ay ñeneen champion. Hmm. du ma tudd seen tur. Hmm. mais ñun dañoo def suñu preuve si làmb. du ma toog di wax waa hmm. mais damaa bëre mu neex. lu ma def mu neex ambiance mu neex nekk xale nag xale bu ndaw gëm sama bopp. man nag sa fecc moo ma gënal sa bëre. non lépp esaat <laughs> <laughs> léegi la xamu nu mu tudd noonu. esaat bu ñu indee lépp day neex non boobu affaire la. doon seedaan man ma nekkoon amateur. doon seedaan si salaam. boo feccee ba pare may jóg dem ñibbi. non ñun ñun lépp ñun ñun cosaan lañu indi ndax ñun foo ñu fekk nii la suñu fiyeef quoi ñun ay doomu Fass lañu te Fass moom moom làmb Fass mënoo bind histoire làmb te bindoo te Fass bokku si te Fass moom làmb te mënul ji nekk roi des arènes mais lool noonu suñu borom la ah, mais bis bu jotee mais bis bu jotee incha allahu rabbi dina yomb hmm. waaw fii lu am rek suñu borom a ko dogal looy nañ koo xam ne mën na nekk roi waaw lool noonu bu ko gars yi waxee loolu noonu ñoom seen bébéb la rek te yàlla na ko yàlla eggali ñun yàlla lañ gëm te ñoo ngi si làmb ñoo ngi si làmb luy luy euh, ñu si làmb rek la ñuy dox waaw lu ñun suñu suñu euh, suñu làmb lu mu jëm kanam rek la ñuy xool chaque jour mm. c'est si lool si loolu la ñuy dox gars yi ñu ngi koy wax Ada dégg na loolu Ada lan moo ko war a may loolu parce que loolu du ay waxi neen loolu sérieux rek xam luñ bëgg te xam nañ ko te sérieux nañ te incha allahu rabbi jaan ci kaw jaan suuf yàlla baax na gëm nañ suñu bopp loolu bi ngay wax ni sax doomu aadama dañuy foog ne dara la quoi mais dañoo gëm suñu bopp xam suñu bopp mm. nekk xale bu ndaw mm. gëm làmb bugg ko donc fu laak fayda bi moom boo ñëwee stade dañ ko ñun làmb kenn duñ jiitu si dara mm. ñu lépp ñoo si jiitu ñëpp gars yi fekk si ndaxte entraînement ñoo koy dañuy jug dem defi ko leneen ak leneen dañoo bëgg a làmb te incha allahu rabbi kon li nga wax léegi phase fii lu yàgg-yàgg dina ko ami si kàttanu suñu borom am ngeen lu yàgg-yàgg si kattanu suñu borom bu ñu fi yàlla bu dina ko amee mm. te gudd fa rek la ñuy ñaan si àdduna. Mm. du leneen. Mm. Ada am na ay mag yu nekk ci ginnaawam encadré ko. waaw am naa ay kilifa. am naa ay kilifa yu bëree bëri ma lim sax bu may bu ma limee rek damay juum. damel ñooñu duñ leen ba woon Fass ba Demba. waaw ñoo ngi fi. ñu ngi fi ñoo ñu ngi ñuy jege. yaa dem si kër maam maam. maam góor gi Ndiaye duñ fa gëj. Mm. suñu maam la. suñu papa Moussa ñi nga tamit. Mm. duñ fa gëj kooku suñu papa la. Mm. Fass ñëpp man bu ma limee rek dañ may juum. Euh, mba euh, suñu suñu pap mbay Gueye yàlla su aw si kawam ndax da ñun ay doomu Fass lañ Moustapha Gueye yaay waxtaan suñu pap la Moustapha Gueye suñu pap la coach yëpp ñëpp ñoom Ibrahima Mbaye ak ñoom ñëpp ñoo ngi waxtaan ak ñoom ndax da ñooñu suñuy ñooñu ñooñu suñu pap parce que gars yu bëri dañu defe ne woon da nga da nga beru xam nga ñooñu amoon ñoom benn relation non ah. man ñoo loolu warul mën a man si ñooñu laa juddoo man Igri Fass laa xamee bëre man bu may nekk xale laa nekk biir Igri Fass dafa dem di seetaan bëre mm. maîtriser ko bëgg ko bu may nekk xale ba léegi ndaxte ñun amuñ lu dul Fass mm. fii lañ dëkk quoi mm, mm. te fii ko xam-xam na ne Fass écurie penc la loolu mag yi xam nañ ko bu baax te làmb ji lu muy lu lu muy lu coole di bëri bari bëri Fass la ñuy wax waaw non temps yi moo xew mais lu coole di bëri bëri bëri champion yi champion yi fii lañ jugee waaw loolu am na moom kilifa yi boog champion yoo fi la ñuy jógee. Dubales jaar na fi suñu papa Dubales yàlla na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais temps moo xew de xew too leen de. mais yàlla baax na yow daal yaa nii parfois nii xam nga. <laughs> incha eh, allah dinañ mos a xew waa Passe maa ngi jégalu de yéen ñëpp ah, ñoom ñoom. ñoom Serigne Ndiaye ñoom général yéen ñëpp samay gaan ngeen waaw maa ngi leen ziar bu baax a baax per Ibrahima maa ngi leen nuyu Socé Socé waaw ñoom ñëpp samay gaan lañ ah samay samay xarit lañ waaw mooy léegi nag fi ñuy jeexalee xam naa moom làmb duñ ci yàgg ñu ngi la fekk fii tey sa bopp koñ ak sa gaay ngeen di defar café gi dafa mel ni ki lii moom ngeen di dund saasu ne ci weeru koor gi ah waaw ñun lii lañuy ñuy dund ndaxte ñun amuñ lu dul amuñ lu dul doomu aadama yi ndax lu ñu am si aduna doomu aadama doomu aadama yi ñoo ñu ko may barke Serigne Saliou ñun lii rek lañ leen mën a fayee chaque jour ñoom si lu ñu bëgg ñu ñu si taxaw ndaxte ñoom ñoo ñu dooleel surtout sa waa gox sama waa amuñ lu dul sama waa gox chaque jour ñoo may dooleel. nan nga mel ak ñoom. ñii man ak ñoom depuis temps booy la man ak ñoom depuis temps booy la man ak ñoom sa ay morom lañ mm. dama fekkee da ngay mel ni kii du mm. biir quoi. ndaxte man ak ñoom man mënu ma leen jaay dara ba mu saf leen man ak ñoom démb la mm. te ñoom lu ñu bëgg a bëgg naa ko lu ñu bañ bañ naa ko mm. man ñoom ñoo ma gën a lépp si àdduna parce mm. que Serigne Saliou Mbacké loolu gis naa ko bi mu ñëw ndaxte ñoom bu ñu ñuy sonn un man damay sonn deux ndaxte lépp ñun lu ñu sonn man maa ñu ñuy sonn barki Serigne Bamba di leen di leen ne ñu gën a jàpp rek saa mënoon leket gi. Baay Faal yi dañuy sànq benn moto bi mun na. <laughs> non dañuy maayaar mooy mooy léegi. non dañuy maayaar wala moom du xool tali bi. non moom moo ñu xool du xool gauche droite. moo ñu xool normal. amul bët. moo ñu xool normal. waaw ah, sànq borom moto bi man tiital ma de ma ne ko danoo koo danoo koo jël. mais mhm. alors tey café gi nii ngeen koy dundee si weeru koor bi mhm, quoi. Mhm. fii nii ngeen koy defee saa su waaw fii koy defee chaque année. fii koy defee chaque année. mburu. tàndarma lu luy jëm si ndogu rek. dañ koy joxe daal ngeen séddale ko gars yi quoi ah, séddale ko séddale ko jaam yi. lii nañu amal jaam hmm. suñu borom la ñuy liggéeyal. dañ fi liggéey suñu borom moo ñu koy fay. Hmm. xaar ñu si doomu aadama nag. Hmm. xaar ñu si doomu aadama. ok dañuy liggéey li mooy jëf yàlla tax. waaw dañuy jëf ngir suñu borom. alors euh, ci koor gi. Mhm. di nga di nga dem jàkka ja di nga dem juma. Mhm. yow yaay jiite sa bopp naafi la wala yow yaay wala dañ lay jiita non heure naafi la entraînement la may fekk mais bu ma ñibbisee maa ju maa jiite sama bopp. yaay jiite sa bopp yaay julli sa ah, bopp waaw ba samedi ak dimanche moom damay dem si juma ja. jullee mhm. jullee foofu. jàng. jàng naa alxuraan. jàng. waaw arafa dëggantaan. <laughs> jàng naa de. léegi ba da may taril benn saar. non jàng naa. waaw non benn saar rek nga may taril. Uh-huh. gars yi dégg ñu xam ne si weeru koor lañ nekk tey làmbuñu uh-huh. dañuy weeru koor xam ne tamit mbër yi am na ñoo xam ne dañu jaar daara uh-huh. am na ñoo xam ne xel comme la ñu màggee am na ñoo xam ne fee la ñu màggee fee la ñu màggee fee la ñu màggee mënuñu duñu mënuñu rek ñëw fii naan dañuy bëri mais dañoo jàng dañu am na lu nekk seen bopp yi taril ma benn saar bu la gën a neex rek boo mën a tari gars yi dégg ko ñu maye ko tey ci est-ce doo ñu ko tari ba pare ma tari man mi ah. man lan lan nga bëgg ma tari. Eh? non tari rek Fass Sarr bu la ne. waaw ah, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in irina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin bismillahi rahmaani rahim qul yaa ayyuhal kaafiruun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu wala ana aabidu ma abadtum wala antum aabiduna ma aabudu lakum diinukum wala diin. jeex na saar boobu lan lay tekki lan ngay mën a expliquer ñiy seetaan saar boobu lan lay lan lay tënk rek si tënk rek tuuti rek lan la. lu mu tënk bëri na. micro bi waaw. lu mu tënk bëri na trop. non tuuti rek. loolu lu mu tënk bëri na. waaw tuuti rek misaal ñu tuuti man ba ma waxee sa alxuraan. nga bu ñu toogee fii di wax da ngay ne kii est que du ma bàyyi bëri demaat si alxuraan. waaw man bu ma nekk xale. Hmm. ba am 16 ans balaa ma dugg école maa ngi si alxuraan. Hmm. alxuraan laa xam. Hmm. waaw lañu xam. jàngoo nasaraan Seydou Jamin bi laa jàngee. Seydou Jamin bi. Seydou laa jàngee. macha allah. waaw ñun fii laa jàngee. ba si trop. soroon naa si trop trop trop ah, ah, trop. waaw léegi Sarr boobu tënkal ñu tuuti rek. non si ñaari ay kaafiroon lu mu wax bëri na. waaw tuuti rek ah. lan la wax tuuti rek wax ñu rek. waaw loolu lu mu wax bëri na Sarr boobu. tekkil ñu tuuti rek. non mënu ma ko tekki nag balaa may juum. dañu lu mu wax bëri na. mais daal jàng nga fii nga jàngee waaw jàng naa fii laa jàngee. Hmm. Hmm. ba sori lool lool ba sori lool. macha allah hmm. alors euh, tari na fi benn saar tari loo na ma man tari loo naa ko. tari man saar bi nga tari man mënu ma ko. mënoo ko. mun mu ko. yaa ma raw. non yaa ma raw yaa ma raw bu baax a baax. alors tey ban ñaan ngay ñaan ci Sénégal. lan nga gën a bëgg. Mhm. Euh, ci weeru koor gi muy ay ñaan yoo xam ne saa su nekk rek du génn sa xel yaa ngi koy ñaanal jaami wala yow yaa ngi koy ñaanal Sénégal ci barke weeru koor gi ñu nekk. waaw lu may ñaanal sama bopp man moom laa ñaanal doomu aadama ñëpp. Hmm. chaque jour lu may ñaanal sama bopp man laa ñaanal si doomu aadama yëpp na damay ne chaque jour man bu ma yeewoo alhamdulilahi rabil alamin mm, sant yàlla na ñëpp am jàmm mm. man ma soog a am jàmm mm. ndaxte àdduna jàmm la quoi jàmm mooy pee leen soog a ñëw waaw di ñaanal ñëpp jàmm tamit di ne gars yi gis nañ Sénégal instant bi macha allah suñu borom may ñu lu fi musta am muy coupe d'Afrique barke Serigne Saliou loolu dañ koy gis waaw loolu dañ koy suñu borom na de yàlla la te instant ñu ngi ne qualifié coupe du te yàlla moo mun lépp yàlla bu mun lépp nag ñoo ngi koy ñaan yàlla mu meññ coupe du monde. foofu nga jëm de. incha allah rabbi xamoon naa ne fa nga jëm. gars yi ne coupe du <laughs> ah, suñu bët ñun foofu lañ ko suñu bët coupe du monde lañ ko teg. incha allah ñun bu ñu demee dañuy kii quoi mais dañ koy ren dañ koy jëli incha allah xam nasaraan yi ren dañ koy jëli de incha allah rabbi dañ koy jëli mu neexee yàlla moom day waaw dañ di wax na ñëpp ah, am jàmm di wax sama sama adversaire nag mhm. na waaj lu mu waaj doyul na waaj lu mu waaj doyul maa ngi woo ñëpp maa ngi woo dëkk yëpp du ma limee damay jum maa ngi woo waa Fuuta waa Waalo waa Casamance waa Gambi waa Kajoor waa Pout euh, waa Linguère mm. maa ngi woo ñëpp barki Serigne Saliou Mbacké di wax ñu siy jàpp ñu si yàgg jàpp maa leen di woo si combat bi le 26 juin la incha allahu rabbi. ah côté bi doo leen woo. dëkk bi féete côté bi. ñëpp laay ñëpp xam nga town bi laa woo <laughs> fukki ñaar yëpp maa leen di woo si la ji. maa ngi woon Dakar bi yëpp du ma limee damay juum. Mm. ñu si yàgg jàpp maa ngi leen di woo. di ne bis bi seen bis la le 26 juin la incha allahu rabbi ñu teel a waaw jug dem. defaral waa ji dem suñu yoon xoolaat keneen nekk nekk suñu kanam incha allah doon bëgg a ñaan aada aada mhm. booy booy bëri ji gars yi nga xamante ni ñooy dego ne ci yoon bi doo wax ak ñoom ngir yàlla ak yoon noonu loolu amul loolu amul dañuy wax rek mais loolu musta am gars yàq der rek mais sama kawaa man bu jógee stade lañ jëm mm. dafa ñu dara lu bon barke Serigne Saliou mais bu amee ñu ci rax di wax gars yi non à la violence chaque jour wax chaque jour bu ñu demee stade nañ toog support de seen seen bër daan incha allahu rabi ñu dox nànk dem ñibbi. Mhm. man xam naa ñii du ñu ay defkat. Mhm. dañoo woor ñu ngi ci jàmm ak salaam te ay nit yu mature lañu. Mhm. te yow lu baax lañ la bëggal mais am na ñoo xamante ni dañuy topp ci turu Ada Fass mhm. profité ci bésu Ada Fass def naka sa dul noonu man ñoom laa bëgg nga wax loolu noonu man mosuma ko mosuma ko dégg mosuma ko gis ndax de gars ñooy wax rek mais du nekkee du nekkee loolu am na yow yaa ngi biir kër waaw mais du nekkee loolu am na gars yi lay encadré mais du loolu am na waaw man maa ngi maa ngi ñaan boog ñu koy def waaw ñu xool ma si waaw xam na ne Ada Fass laamu la am quoi laamu la yaakaar te dañoo soxla ay ñaan waaw mm-hmm. waaw buñ tooñ ñu def dara mm. nañ xaar san mbër mm. ñu ànd moom dem stade gunge ko supporter ko mu daan ñu do ñibbi si non à la mm. xam na ne laa mu sport la rek te Sénégal benn bopp la tey jii mënuñu jaayante dara mais dañuy sport la quoi waaw ku nekk da ngay ñëw di sa gox sport la di dalal ak jaamu qualifié incha allah rabi le 26 ñu jàpp ko daan ko xooli keneen. incha allah barki Serigne Sall lu na ko waxee nii noonu lay demee dégg ma xanaa lu ma la ko waxee nii noonu si kàttanu suñu borom. ko fay dë day dem ndox day dem fori ji. man yàlla ma fekk Amérique man. amiin <laughs> maanaam kii jógee <laughs> di bëggee di seetaat affaire bi nice ma. incha yee bisu Ada Fass kenn du ko raté bésu Ada Fass rek. bi ak fecc bi ak affaire boobu mu naan ni ci xaw ma xaw ma cëgin ma yow cëgin ngay fecc wala. di bëggee ngay bëggee non man lu fecc. <laughs> non <laughs> sama sama taafu ma moo ko jox Matar. waaye paas la nag. kooku sama waay la. Eh. waaw di bëggee Abakara bu baax a baax. kooku ku bon la. ak ñancoo. kooku lim la jox noonu def def TV. waaw maa bu baax. Uh-huh. du faya sama waay la. di bëggee ñëpp képp kuy sonn si man sama benn yaay. Mm. la mère Béti Ndiaye kooku sama yaay la. Mm. waaw di bëggee ñëpp barki Serigne Saliou Mbacké. Mm. làmb dafa métti. te saison bi man maa si bi mooy sama troisième combat saison bi loolu yombul. waaw suñu yàlla na suñu borom ah, oyofal lépp may ma si kàttanu suñu borom moom bi ko yor maa ngi koy ñaan mu may ma ko si kaw qualifié de jël bu leer nañu bu amul benn werante incha allah rabbi. gars yi maa ngi maa ngi kontaan li tax ma duggoon ci côté boobu noonu mooy côté buy dem bëre ji mu am ñu ñuy dégg loolu moom mbër bi ci boppam la ñuy protéger parce que dafa nekk jeune boo xam ne dafa nekk ci yoon dara waru ko gàllankoor kon boog yooyu ñuy dégg ñi nga xamante ni dañuy profité. ci événement wu jàmbur ñëw topp ci jàmbur googu noonu ci turam di def ay ñaaw ñaawteef loolu moom digalu ko kenn te boo ñëwee tey ci koñam fekk mu toog ak ay copains ñi muy ñi mu àndandool ñi muy foowandool bi muy nekk gone ba tey ñu gis ne ñu kuul gars yi kilin kon boog ñi nga xam ni ñoo ciy rax di def naka sa noonu moom Ada Fass bëggul loolu gis nga da ngay gis ay nit dañuy romb di ko nuyu di ko ziar kon ça veut dire que fii taw nu jàmm la quoi bu fekkee nag gars yi dañuy profité ci occasion ci ay combat ñëw di yàqu turam di jéem a def naka sa dul noonu Ada Fass wootewul loolu Ada Fass jàmm ak salaam non à la violence la woote stade dem daan ñibbisiwaat bégee moo tax man ma attirer attention ci côté boobu parce que dañuy dégg lu bëri ñuy joxañ ñuy tur bi rek la ñuy dégg Ada Fass la waa Ada Fass waa Ada Fass yéegu leen déggu leen kon aada ñu ngi lay ñaanal jàmm aada yoonu jàmm yow ak sa moroomu jeune jeune mbër yi nekk ci làmb ji yëpp ak mbër yi nekk ci làmb ji yëpp yoonu jàmm uh-huh. ñëpp am jàmm uh-huh. ah, ñu bëri ko si jàmm ak salaam làmb ji am jàmm làmb ji gën a développé ñëpp gis seen bopp muy reporter yeek muy mbër yeek ñëpp ah sa copain tamit yàlla defal leen jàmm yàlla gën a yàggal seen seen diggante bu baax a baax a baax te bul soppeeku waaw ah, bul bul soppeeku bul kii jékki-jékki rek xam nga commencé gayen di jaay gars yi affaire ba demee gars yi café la ñuy tàngal ñu xoolal uh-huh. ñëw xëpp la ko <laughs> <laughs> waaw jeex na tàkk uh-huh. parce que ñoom mooy loolu yow ak ñoom benn ngeen quoi uh-huh. ati kontaan nañ trop te ñu ngi lay remercier tamit ñu ngi jégalu si dérangement bi voilà weeru koor spécialement ak Ada Fass moom lañ ko commencé di bëgge euh, Baye Fall yëpp ah ñu ngi leen di woo si combat bi. combat Baye Fall yi quoi la. combat bi combat Baye Fall yi la. combat bi combat Baye Fall yi la. waaw Baye ñoo ko moom. ndax combat bi dafa diis quoi. non ñu yàpp kuy kuy kuy kuy xalaat wala hmm. bi ginnaaw quoi ñun amuñu tànk ginnaaw. Hmm. suñu borom. maa la ko wax le 27 fii ngay ñëwaat ñëw buuxante pour gis ma. naa dem si qualifier si kàttanu suñu borom. boo demee nga ne ko booy bi mu ne. man kay lu ma ko wax mi ngi nii. gars yi dañ ko yónnee te yàqamti ko nekkul kuy taxaw sama kanam boog di ma jéem a sax téye. moom Coly si àdduna. barki Serigne Saliou. ah baax ñaanal wér rek di ñaan sama bopp wér. Seyda après ñu dem ba bis si kattan suñu borom incha allah. li la Ada Fass yàq. Ada Fass tegu la ngay lenn nee na moo la mën moo la ëpp doole. day ñëw faxas la dem yoonam. waaw lu mu indi daanu. nee na du yow yaa ko mën a téye. boo nga ne Ada Fass mu ne loo ah? indi daanu. kii moo gën a féete xale. waaw moom nee na nee na lu mu indi daanu lu mu indi daanu bu xeexee daanu bu bëree daanu si kàttanu suñu borom lu mu indi daanu man maa arafas man maa la ko loo ah, indi daanu si kàttanu suñu borom. ku mën a xeex la mën a xeex am na fit fit am na ko mën na xeex. maa ngi bëggee sama benn baay faal maa ngi bëggee sama benn baay faal bu baax kalaamu kalaamu. waaw yëmbal la dëkk kooku sama waay la kooku jàmbaar la quoi sama waay la. banlieue bi dañ may bëggee barke Serigne Saliou Pikine ginnaaw raay barke alxuraanul karim Fass Mbao Malika Kër Massar banlieue bi dañ may bëggee normal moom moo ngi si banlieue bi de mais ñoo ko gën a dëkk si banlieue bi fuuf barke Serigne Saliou Mbacke di bëggee banlieue zaar yëpp maa ngi leen di bëggee Arafaas moo ngi leen di bëggee waaw di wax la woo ñëpp le 26 si kattanu suñu borom ñu fees stade bi jàpp waaju duma ko daan ko. xooli ko jaayef gars ñu ñu ñu ñu ngi bu baax a baax premier numéro la ak Ada Fass incha allah dañuy dem ci qualify dem waxtaan ak moom li nga wax yëpp li nga ko jëwee yëpp di leen ko ko jox jëwoo ko sax lii en direct la da seetaan ah ah qualify seetaan nga lii léegi après xam nga mu tontu rek après ñu waxtaan ci loolu ñu jéem a xool naka la fay demee ah ba bés ba rek nee na doo doo doo xeex doo bëre loo indi daanu Ada ko wax daf ko wax ma bamtuwaat ko waaw yóbbante rek la nag. léegi sey naa ñu ngi lay jaajëfal bu baax borom borom Amérique jugee Amérique rek ñëw dof ñëw dugg Sénégal dof sëñ Saliou ñu ngi lay ziar dañuy jeexal ñuy euh, yëkkati julli gi tàkkusaan kon aada kooru jàmm ba fan yi incha allahu rabbi loo am ci koor gi may ma. boo amee tuyaaba may ma di bëggee sama sama papa sama gaan Fallou Ndiaye. promoteur Fallou Ndiaye même promoteur waaw maa ngi sama waay la. Ah, ñu ngi koy baax. maa ngi koy bëggee bu baax gars yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi